comme muuraay dafa am ci jamono loo xam ne man de gisuma ne muuraay la xaw ma affaire affaire moderne la xaw ma lan la léegi nga gis nit koo xam ne day sol lu seere tubéy baag ak mbum ma lépp mais nga gis ci kaw bopp bi luy niroog xijaab yaakaar naa ne xijaab boobu du moo taxoon yàlla santaane xijaab de mopp loolu du xijaab wala greffage rek nga teg ko ci kaw bopp jàpp ne yow def nga xijaab wala musóor déedéet yooyu yëpp du xijaab musóor kese kese du xijaab il faut nga muuru yaa xam nag yan yére ngay wut parce que dafa wax ne nii na yudniina bi min jalaabibihinna su ma juumul ci laaya bi noonu la ko indee woon il faut nga sol yére boo xam ne ca kaw ba ca suuf yére bu jot la bu rëy la bu yaatu la su ko defee nga jëlaat beneen musóor laxasaat ko ci sa ko bopp mu wàcc ci ci say mbagg yaakaar naa daal boobu mooy muuru boo xam ne moom la lislaam santaane mais muuru nag bi nga xam ne moderne la gars yee ko moderniser indi ko fi ñooñu yaakaar naa ne ñoom dañuy bugg a xeex diine nag lislaam lañuy ñuy jéem a attaqué boobu moom lislaam taxu taxut mu wax ko tu boobu beneen euh, anam boo xam ne nit ñi dañ koy def foofu nag boroom xam-xam yi dañ faa wute parce am na lu ñuy tuddee comme kar xanam bi am na ñu koy bàyyi ak tënk loxo yi ñu ne loolu moom bokku ci am ñoo xam ne dañuy gis ne ñoom loolu ci la parce que loolu ziina la am na ci boroom xam-xam yu déggee noonu di wax ne parce que nit ki ci xam ci kanamam rek nga koy xool euh, boo melee ni ñi nga xam ne dañu sàggan su ko defee nga commencé di ko intéressé wu mais nag bu fekkente woon ne karxana bi sax mënoo koo gis dafa yëkkati beneen musóor rek teg ko ci mais nag na nekk tamit loo xam ne dangay gis bul def loo xamante ni lu fàtt la bet boo doon dox ci mbedd mi da ngay dem di mbokk oto yi loolu tamit wóorul <laughs> loolu moom wóorul na nga def loo xamante ni loo xamante ni bot yi mën nañ xool fi ngay dox ala kulli xaalin wuute la ci boroom xam-xam yi am na ñu gisee noonu neen loolu dañ ko war a def am ñu ne déedéet Eh, yàlla daal lim ñu sant mooy nañu muur yaram bi yëpp maa adal wajhayni wa kaffayni loolu moom nañ ko bàyyi wallahu taala alam eh, wat hakaza wute bu amee diggante boroom xam-xam yi dañuy xool wax ba gën a dëgër rek ñu ànd ak moom waaw bu bu gën a dëgër man may ma may mooy nu tudd eh, kar xanam beeg ak loxo yi ci man man laa wax mun na am nag ci ñeneen ñi ñoom waaw man tam moo moo tax ma wax ko man ci man bi gën a dëgër ci man mooy nañ bàyyi kaar xanam bi ak tënk loxo yi boobu moom buñ ko ci boole waaw ala kulli haali nag Lamine mën nga fa xuus xuusal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba muy yebal Aliyu Xaybar pour mu dem waaraate ji foofu daf ko waxoon même bu dee benn nit moo jub sa loxo kon ala kulli haali loolu ngëneel yu am solo moo ci nekk ah di gërëm nag sama mbokk ustaas yi fi teew yëpp ah, masalan su ma waxee loo rek mën naa yóbbaale ñëpp ngir mën a mën a gañe li nga xamante ne mooy temps bi bu dee ci jigéen ñi ñoom soxna ay sëtu ak mu àndal soxna awa ah soxna ummu laam ak sama njaatige mère bintu sibi mu ngi ne la këram laa nekk ak soxna awa ah, ak ñu fi teew yëpp ñu ngi leen di gërëm di leen sant waaye gërëm bi ak sant bi tamit ah dañ ciy boole ñaari site internet yi nga xamante ne dañu déplacé wu ñëw ci seen moyen bokk na ci oustaz Saïd Diallo moom moom Mousli TV mu déplacé wu ñëw ngir jël li nga xamante ne mooy waxtaan bi waaye beneen bi Elvision Média mooy Elas Lo mu jóge ba Fass Mbao soxnam nekk ci groupe bi mooy Dieynaba Balde mu nekk suñu jigéen macha allah moom it ci mooy boppam sax la jóge ba fas Mbao ñëw ngir jël li nga xamante ne mooy waxtaan bi kon alaakulli ñu ngi leen di gërëm. di leen sant waaye noonu la ñuy gërëmee tamit soxna Fatima moom mi nga xamante ne moo ñu dalal fii ci këram waaye noonu la ñuy gërëmee tamit borom këram papa daam parce que ci ndigalam la lii amee su ko neexu neexutoon tamit du mën a am kon moom it dañ koy sant gërëm ko ñaanal ko borom bi subhaanahu wa fu may tënkee rek mooy groupe xam sa diine bii mooy suñu première jataay bañ ko ubbee ba tey mais mën nañu wax ne commencement la. mais mën nañu dox demaat ci leneen lu dul lii Fatima rek moo buggoon ñu ñëw këram amal waxtaan bi mais ala kulli yaalin ku ko bëgg tamit mën nañu ñëw sa kër amal waxtaan bu mel nii kon loolu mooy hadaf bi di sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan borom bi subhaanahu wa taala lépp lu oustaz Ahmed soo wax fii rek mu may ñu dëgg ak topp wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa waa wa akiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.